cap benn militant bu APR moo ibbiwaat jàmmarloo diggante ñaari way ku politique yi ci jamonoy régime Macky Sall li ko indi nag moo de accusation yu grave yoo xamante ne kii di Bah Diakhaté def na ko ci kaw jëwrin mu njëkk bi du Ousmane Sonko te mu nekk tam njiital patriote africain yi fi ak nag ñuy xam yoon ban dogal la ci jël ak fu muy mujjee loolee indi na confrontation politique maanaam Fanta Siro ci wàllum politique boo xamante ne kenn mënu ko moytu diggante républicain ak patriote yi lëñmët bi ñuy lëñmët tam doxalinu régime Macky Sall ci jamono yi di ñëw tam moo nar a indi bataille politique ak judiciaire diggante APR ak waa PASTEF rapport inspection générale d'État yi ak cour des comptes ba ci nag tax nañu xalaat ne dina am ñenn ci ay kilifa politique di ay républicain yoo xam ne dinañu jaar ci kanam yoon li jëm tamit ci foncier bi nga xamante ne nguuru Bassirou Diomaye Faye ñu koy lëj mëj ak volonté bi nga xam ne nguur gi am na ko ci sàmm domaine maritime bi ak littoral bi ba suuf si ñu delloo ko dina gën a ñagasal diggante APR ak PASTEF président Bassirou Diomaye Faye tam bi nga xamante ne fas na yéen a audité doxalinu Macky Sall ak kopparu askan bi nga xam ne moom la ñu doon liggéeyee loole yëpp nekkul loo xam ne dina woy di rattaxal dal bi am diggante APR ak PASTEF li wóor moo di ne ëllëgu politique ak si wàllum yoon diggante Pastef ak waa APR la nar dox ba loolee sax dina laale ci ñu organiser ay élections jëm ci wàllum député laata septembre 2024 wala après tas assemblée national dina doon nag lenn loo xam ne moom moo nar a nekk jeexital ci bras de fer bi nar a am diggante Pastef ak euh, APR jëm ci wàllum politique ak ci wàllum yoon assemblée national nag muy enjeu bu rëy maanaam ñu nar ko xëccoo mu nar a tàbbi ci la ëpp ci loxoy coalition Diomaye président wala ku jege.